rahmaani rahiim alhamdulilahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amiin sayidina moolaana muhammadin il makiin wa ala aalihi wa sahbihi wa xadimihi wa bi ridwaani wa tamkiin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaw maa ngi nuyu bokk yi fi teew yëpp ak yi ñuy seetaan ak di ñu déglu jaare leen nuyoo bi ci sama ñaari jarbaat di ñaari abo yi abo kebe abo mbakke di wuyu woote biñ ma woo ci sànni ay kàddu ci jëmm ju tedd di sunu soppe di sunu waajur di sunu wasila di as Seex Saalixu radiyallahu anhu xam naa lu jafe lay doon waxtaan ci moom rawatina ci man ndax jege gi ma jege te keko jege dëgg-dëgg du ci matub atte sopp gi ma ko sopp ak bëgg gi ko bëgg loolu dana tax dëgg-dëgg li may wax ci moom du ma ci matub atte waaye nag jege gi taxut nu jàppee ko waajur dañ ko jàppee wasiila jàppee ko sëriñ sunu digg ak sëriñ bi te ab taalibe nag sañ naa wax cib sëriñam la mu xam ngir ay bokki taalibeem dollandikoo ko kon ci googu wet rek lañuy waxe moom jëmmi sëriñ Saalixu di jëmm joo xam ne ni ñu ko baaxee waxe ku tedd ki mooy wajuram wu góor Cheikh Ahmadul Qadim soxna Faati Jaxate moom góor gi muudu asta jaxate ca Mewndu muy wajuram wu jigéen mi ngi gënee àdduna ci njaareem ci atum 1915 jombut ci octobre lay doon walla septembre ñaari weer yooyu bi mu gënee àddina itam waxal na ma boppam ma di ko laaj turam wi ba xam yonent yàlla saalix lañ ko tudde wala kan la mu ne ma mat laam moom la sëriñ bi joxoon tur yi mu yët ko sëñam sëtu mat laam wan na ma mbind ma na ko sëñ bi binde jox ko as saalixa la bind te da ko fàpp li war a fàpp xàggi da boo fàpp nee na kon nag saalixa jooju ab junj la boo xam ne boo koy xool dafay mel ne ci tur yenent bi ci suñ bi jublu kon jàpp naa ne yenent ko tudde waaye tur ci boppam rek dafa firi boppam daanaa ko faral di wax ne ko li sëriñ bi wax ci nooru daarini wa abliyal ilma saxiixa wal amal alsaalix allazi yukammilu al amal ma ne damaa def ni sëriñ bi yaa taxoon mu di ko wax mu ne ma ah loolu de moom maa ngi ñaan mu sarax ma ko wala mu rafaatale ma ko donte ma koo jógin ma barkeeloo ko mu rafaatale ma ko <laughs> loolu nag mooy firi ne sëñ Saliou mi nga xam ne mooy mottali samay mébét te loolu it li ko firndeel mooy mu mujj ci ay doom muy jëmm joo xam ne dafa mel ne doomi Serigne Touba ku ci ne dafa am loo nuru sëñ bi sëñ bi moo dajale yu baax yëpp. te lu ci ne ku mu ko jox loolu dalay lay doy sëkk fees del del del sa place ci yow ba nit ñi di la ci yëm te fekk ci sëñ bi la jóge nga xam ne fi ne doomi sëñ Tuubaa koo ci jaxasool te xam ko dëgg-dëgg da nga mën na ji wala melo wii la nuru sëñ bi ba moroomam yi dañ ko ci yéem te ñoom ñëpp nag loolee ñëwaat sëñ bi dañ ko jële moom nag ci zaahir nii ci nuru gi sëñ bi kàddu la ko gën a nuru ñi xamoon sëñ bi ñëpp boo toogoon bu doon bu doon bu doon ko xamoon sëñ bi dëgg dëgg dëgg bu nee ci kees gi dégg sëñ saar yi wax fii rongo ña rot ndax sëñ bi da fàttali ne sëñ Tuubaa kàddum dara xumb bi mu sañcee Tuubaa xam naa leneen la waaye misaal laa ciy joxe dégg naa ci kenn ci ay doomam wax ne bi mu sañcee Tuubaa gi te léeg-léeg mu réer nit ñi ba taalib bi dañuy ne ci àll bi mm, lu yàgg duñ ko gis waaye fi ñuy xamee fi sëñ bi toll waxtu wu nodd day jot wala waxtu wu julli nee luñ sori sori ci àll bi danañ jégg sabu gaynde wala allahu akbar sëñ bi moom la ñu wéttali ci àll bi yàlla def na lu mu tollee ci juróom-ñaari at mook sëriñ yi bu ñoom la boole ci lépp ñoom la boole jox si yem satu wax leen la mu leen wax ca ñoom ndax sëñ Abdoul Ahad moo leen jiitu tuuti moom moog sëriñ Abdoulaye Jaxate ñoo bokki mbir ñoo dalandoo ñoo maase waaye moom sëriñ Sohibu bu la maaseel la moom la tollool daal nga xam ne day mel ne euh, octobre 1915 moom la sëriñ Saliou 27 juin 1916 la sëriñ Sohibu waaye ñoo dalandoo ñoo bokk na ci daara ji moo taxoon booy xool sax xaritoog bii xaritoog biir dëgg-dëgg ak man a waxtaan waxtaanu ndonga ak bu fi dikkee du doon gan dañ dañuy fanaane waxtaan ba fajar ku nekk dellu wala boo bu suñ bu demee def noonu loolu moom la ko mën a doon ndax jàpp gi mu ko jàppee bokk gi bokk daara mu doonoon koo xam ne njàngum alxuraanam lu gaaw la ndax xelam dafa bokk ji nuru sëñ bi xel mu rëy mu gudd te rafet jàng na ko ci diir bu gàtt. dafa mel ni itam li ñuy wax ak taalibe daf ko indaale ci àddina ndax bu doon lu ñuy roy dañuy nekk da naan dañuy néeg ba doon mag door ko roy ci kenn waaye daf ko teel am ndax damay faral di wax ne màggalu Tuuba am na ci lool lu ci waaye def Sëñ Saaliw dana ci am pourcentage ndax am na lu ci def loo xam ne moo ko njëkk a def yàlla dafa def bi mu ne fii ci daara ji ci daara xam nga sëriñ am sëtu dafa jël sëñ Alsaan Jaxate doomi jàmbaar jaxate dénk leen ko yoral ko léppam ngir mu jàngal leen ñu ci biir këram fii Madiyana nekk tey ñu di ko wax ñànk boobu tool yooyu fi lañ daa bayee signal saan ne fi waaye sëñ sëtu féete ko fam ko war a féete mooy mu féete ko ci gone yi bi sëñ maggal gi bis bi mu njëkk wax ne nañ ko tasaare yëgle ko ñu dama ci sant yàlla te lu waaye mën na ko ci def. bis boobu biñ biñ ko yónnee Touba wax ko bis bu bis boobu ci bis boobu rek sëñ Saliou daf fekkoon maam Jaxate Njaay xam naa yéen du ngeen ko xam man fàttaliku naa ci moom tuuti ci ñu àndoon ak soxna Fatick soxna Mariama la mu mayoon ko am xar am mbortu